lan nga indi pourtant. jabu waxal li nga indi. <laughs> ajaratu tey dañoo dellu siwaat ci coronavirus bi ndax waa enquête ñoom ñoo xëy euh, jox kàddu ñi nga xamante ni nii. ay expert lañu. ñi nga xam ne ay expert lañu te seen xam-xam màcc ci wàllum feebar bi daal leen di jox kàddu ñooñu daal di xamle rek ni ñoom tamit euh, feebar bi di coronavirus euh, li li tax dakaar mën cee sauvé wu leen rek lay doon mu ñu confiné waat li nga xamante ni moo di Ndakaaru jal job tëj ko ràpp kenn du dem kenn du dikk. loolu nekk mbir moo xamante ne nii am na ñu bëri ñoo xamante ne nii ëlëm na leen doy na waax loolu tamit daal di metti ci ñenn ñi waaye tamit ñooñu fi ñu ko teg rek mooy ñooñu gis nañ ni cas communautaire yi ñu ngi ngi yokk cas yi naka noonu ba tax na sax euh, euh, li nga xamante ni lépp loo xamante ni lu metti la ci feebar bi mhm. Dakar la wulee ñaay ñoom nekk daal di proposer état bi ñu jël seen ay matuwaay daal di tëj ràpp li nga xamante ni moo di Ndakaaru jal Jóob kenn du dem kenn du dikk wàtt nañ ci askan wi dañuy dem ñu déglu leen ñu ñu dellu si waat. ah man di d'accord mu ci tëj ko wax dëgg yàlla. ah buñ ko tëjee dina xaw a yéeme quoi parce que Ndakaar mooy capitalu Sénégal. Ndakaar ah nañ bàyyi ba màggal gi jàll rek waaw loola dañoo war a màggal moo tax na doon di leneen Ndakaar buñ ko tëjee de xanaa du yàgg yaakaar naa. d'accord ma ci parce que ni nit ñi doon circuler ci euh, avant feebar bi daanaka fi mu ne nii ñu ngi waat ci noonu. ñu ëpp ci doomu réew mi fi la ñuy yaxantoo quoi li ñu yore suñu kër fi lañ koy dawee maanaam dépasse bi daal. te tamit man gisuma wàññal ci gisuma yokkute ci te te tëj geeg yooyu. suñ ko tëjee moom baa du doon feebar bu jur jàngoro. Sénégalais yi yoruñu dara dëkk bi dafa dëgër te Sénégalais ñu dara mun tëjee Ndakaaru day metti lool ci ñun askan wi. tëj gi moom tax na ko mën a law na nit ñi daal sàmmanteeg seen i masque euh, def li ñu war a def tey set. tey wàññi euh, kii yu bëri yi waaye man dëkk dajaloo bu bëri bi quoi. ah bu dee daw feebar ba duñ am luñ dundale suñ njaboot yi ba dina ko jar. mën nañ koy wàññi comme niñ ko doon defee euh, bi feebar bi déclenché ak léegi daal moom mën naa nekk. comme corona moom gan la goo xam ne xaw na dëgër bopp nañ respecté mesure barrière yi rek euh, jéem a ñaan quoi yàlla mën na def léegi mu jël ay bagages sama ah, man loolu laa gis mais tëj Ndakaaru moom dina metti si ñun. waaw mun mënuñu ko dundal ñëpp état munu ko amul doole ji waaw ndax population bi mun leen a yor mënu leen a yor dafa metti mi ngi noonu ñun ñëpp ñoo ko déggandoo li tax nag ñu bëgg koo confiné waat du lenn lu dul euh, dañoo ne Ndakaaru fi mu ne nii mooy épicentre li nga xamante ni moo di virus bi moom corona son yi bu waaw jabu jaajëf déglu nañu reportage bi <clears throat> nga xam ne moom la leen ci wax am na na ku ci wax lu xorom nee na nañ ko tëj ba màggal gi jàll ñu doog ko tijjiwaat <laughs> na bàyyi ba màggal gi jàll ñu doog ko tëj waaw c'est-à-dire comme ñu ñu bàyyi ba màggal gi jàll ñu doog ko tëj kon ah, kooku moom moom màggal gi rek la xool xoolul leneen en tout cas bi mooy li ma waxoon ci ci suba rek Serigne Babacar Sy Mansour yàlla na fi yàgg te dafa waxoon fan yi passé lu am am solo muy état bu Sénégal na wax dëgg Sénégalais yi béti ñu gis ay rassemblement yuy am suñu gan gi léegi waxoon na ganu Omar bi ci li nga xam ne moom la ñu gis ci yéen ci rassemblement mu jógee ci état bu Sénégal mhm. soxnaam ñu gis ko muy dem di wuy ji ay xew yoo xam ni ay la am ci ay dajaloo ak ñàkk respecte masque ak yooyu bu ñu ko gisee ba pare tey ñu bëgg ni dañu bëri war a tëj Dakar maanaam tëj gi nag ba léegi dañu wax tëj gi mais xam nañu bu ñu ko tëjee fii màggal moom duñ ko tijji léegi nag est-ce que dañ koy tëj pour arrêter màggal g wala est-ce koy tëj pour bàyyi nit ñi ñu màggali ñu bàyyi xel itamit ni bétti benn kaa la ñu amoon bi fi feebar bi doog a dugg moo ñu indi tey lii lépp ñu xew léegi bu ñu tëjee Dakar ndax dafa bari ay cas ñu bàyyi màggal gi mu mu am léegi yeneen kaa yi nga xam ne ay cas contact la communautaire yi dem Touba yan jéye lañ fa mën a am bu fekkee ni lu am la kon man gëw ma ni tëj gi mooy solution nañu bàyyi sénégalais yi comme Macky Sall moo ñu waxoon daal nañu dund ak jàngoro ji nañu respecté mesures barrières yi kenn ku ci nekk xam ni feebar bi bu dalee sa kaw am na lu mu la mën a indil bu ko defee nga nekk sa médecin wu bopp ku nekk ma nekk sa médecin wu bopp waaye loolu mënul nekk ndax bu ñu feebaree ci hôpitaux yi la ñuy dem faju ji umar li mooy nguur gi gëwma ni ñoom ñu ngi ci logique boobu man déjà loolu laa gëm mhm. fu ma ko teg mooy ci cohérence bi Aly Ngouille waxee ba pare ak li ñu jotoon dund ci état d'urgence xanaa tey ji boo doon wa confiné waat da ngay génn waat ceeb joxe diwlin te gëm naa ne nguur gi pareegul pour loolu beneen bi ci topp ñu tëj Dakar léegi yow boo tëjee dakaar léegi yeneen région yi nag mm-hmm. beneen bi ñu ne nañu tëj Dakar xam nga wax dafa il faut ngay xalaat mm-hmm. ñu ne le premier septembre nañ ibbi université d'après ba nguur gi di soppeeku loolu waxagum mais ñi jugee feneen di jàng si université bu dakaar bi fu ñuy jaar. kon yooyu ay question la pour man dafa am ñoo xam ne ñi ngi fi damay poser question est-ce que am nañu intérêt pour dalal xelu nit ñi parce que dañuy nekk ci logique gu tiital nit ñi benn peur boo xam ne à chaque fois ñoom ñi ngi fexe ba nit ñi tiit de ànd ñàkk ànd seen sago ci feebar bi. Mm-hmm. moo tax ñuy indi yenn proposition yi du ko teg mais góoma ni nguur gi dafa nekk ci logique gu tëj Dakar. nguur gi bu ko nammee wala mu bëgg ko ñeneen dina ko defal boppam wala mu waxal ko boppam mais pour man corona bi sama xalaat la de daf mel ne da am ñu ci am intérêt ci yeneen yoo xam ne mi ngi ruus di dugg ci ñoom que ñoom dañuy bëgg rek à chaque fois di tiital nit ñi wala ñuy teg yenn proposition yi mais xel mu dal day tax nit wér mm-hmm. Aly Ngouille Ndiaye bi mu ñëwee wax très honnêtement takk leen masque yi mais da ngay sentir ni mi ngi dalal xelu nit ñi mi ngi leen jox fekk 15 boo leen takkee masque yi du ñàkk ni situation bi wàcc ci suuf ba ngeen mën a doxewaat seen soxla kooku mu ngi na ñoo xam ne heure bu dañuy indi situation boo xam ne nit ñi dañuy gën a tiit nekk ci njàqare ak tiit kon je me mhm. question kon ñoo am intérêt pour ñu confiner réew Ndakaaru mais goo ni nguur gi la parce que nguur gi xaruwuñu dañ leen koo proposé Mali nga yëngu Côte d'Ivoire nga yëngu tëjal Dakar nga xool. <laughs> doy na waax ajaratu. Euh, mais nag la la la la yëngal Malek feneen Côte d'Ivoire du lii du du ça n'a rien à voir. Euh, damaa junj rek. da loolu nañ bàyyi ba egg ci eggaguñ ci. gis nga man daal li ma ciy wax moom laa ci waxoon nañu respecté li ñuy autorité médicale yi wax. Mhm. ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk mbir mi parce que ñun ñun tamit xamuñu li xew ci biir carrément mënuñu lu dul ñu niñu feebar baa ngi fi ñu xam ne feebar baa ngi fi ñu ñu def leen jël leen geste barrière yeeg mesures yu ko accompagner mm. ñu respecté ko man daal loolu laa ci mag quant à confi waat Dakar moom loolu moom déggaguma ko et puis sax am na ku ko wax sànq euh, confinement amagu fi état d'urgence le suivi de couvre-feu mm. loolu moo fi am mm. mais confiné gunu Sénégal kenn confiné wu fi état d'urgence la woon bu ànd ak couvre-feu mhm. non je ne pense pas xanaa kañ dañuy jël yeneen mesure tegaat ko mais de la confiner Dakar non man loolu gëwuma ko gëmuloo ko ça hmm. waaw ñun de li may la wax mhm. béti il faut nga xool lire entre les lignes naa ko liiroo dara ñee li leen yëngal ni nga waxee lu leen yëngal li mu wax non c'est que waa lu yëngal Côte d'Ivoire ak Mali waaw da nga may déglu waaw lu ko yëngal da nga ma wax la waaw wax ñu lan moo taal waaw Mali Tunisie. non Mali Côte d'Ivoire ah la dama lay wax dama lay wax rek dama lay wax rek te pourtant. waaw nañu wax ci Mali Côte d'Ivoire te problème ba taal Tunisie taal. waaw d'accord léegi lu taal lu taal Côte d'Ivoire lan moo fa indi problème. mais vent bi vent wu lan la. déedéet ah ah bokkuñu contexte contexte yi bokkul non non non. non man je ne suis pas d'accord contexte yi bokkul. Omar xam na li yëngal Mali xam na li yëngal euh, Côte d'Ivoire. ñun dañuy wax ci problème confinement confiné Dakar. un lieu très précis lañu wax. mais on parle pas de mandat de affaire yooyu waxuñu loolu. non non c'est que. ah yow tu n'as rien compris. may ma c'est que xam nga moo tax parrainage dégg dég am solo. Euh, réglage la la tontu ni wax dëgg fa yàlla. ni nga déggee ak ni mu waxee bokkul moo tax ma ñëwaat pour euh, leer. non non non dama mais dama xam dama xam fi mu waxee. Omar a ngi nii te man ak moom du saa daa bëri xam-xam ndax man daal Mali la wax ak Côte d'Ivoire te sénégalais yi may seetaan xam nañ la yëngal ñaari dëkk yooyu. Ah. Mm-hmm. waaw loolu nag eggagum ci ah, ñun Sénégal ci mbirum confinement la ñuy wax confiné Dakar loolu la ñuy ah, wax. ah il faut pas que nga yóbbu débat bi fi nekkul yow it. xam nañ yow yaa comprendre. d'accord <laughs> léegi leneen li am. ci wàllu wi nga xamante ni bi moom la ñuy wax. moo xam ne eh, wàllu. Euh, l'expert kii bi nu mu tuddati. tëj Dakar eh, teg Dakar walla kii Dakar. xam nga tey dafa am gis nga tey OMS. Hmm. moom la nit ñi sax gëmut parce que dafa taxaw taxawaay boo xam ni ay taxawaay tappale la ci mbir mi parce que tey ñun ñëpp gis nañ efficacité bi ñu fi waxee nivaquine bi. docteur Raoul di ko fajee OMS bokk na ci ñu koy xeex. Mm-hmm. ñu gis fi Madagascar wax ay mbiram. Artemisia OMS di ko xabal mm-hmm. ñu gis fi. Russie Russie. Mm-hmm. Poutine. Poutine daal découvrir kii ba natt ko ci jabaram. ci doomam OMS di nasaxal mbir mi. kon li Omar wax loolu day ñëwaat ci taabal ji. am na ñeneen ñu am ay intérêt ci mbir mi am ñuy liggéeyal organisation yooyu. Ah. parce que dañoo am doole. am xaalis donc am na yu bari yoo xam ñu ngi koy teg léegi nag man dama seetlu benn affaire état ak population bi état chaque jour li muy teg moom musta indi benn problème mais population bi lu ñu teg rek ñu yokkal leen kaay loolu lu doy waar la. Hmm. état barki dee moo jaay dafa ubbi école yi. Hmm. ba léegi du la cité ne la eh, benn école moo fi yokku kaay. Hmm. gaa yaa ngi xale yaa ngi jàng di dem di ñëw. ah est-ce que du xale yu jàng di ñëw ñooy wàll seeni maam. lu mën a ne la ah. dëgg la mais duñ ko wax. waaw ah, ñoom daal ñu ngi dérouler seen programme mais nag bu kenn dérouler programme. bi ngeen fi demee sax julli ji rey sa xar dem lekk sa muusal ñëw ñu ne la ala ah, cas communautaire yaa ngi noonu yéen ñu doon muusal nag yéen a ngi nii nag yéen a fi mu indi muusal communautaire yi seetal loolu boobu ba nëga ni mm-hmm. c'est que loolu mooy li nga xam ne xam nga nit ñi ay nit lañu. Mm-hmm. du ñu ay machine dañuy xalaat boo tegee ay mbirit dañuy xalaat mbir yi nga teg dañ ciy joxe seen xalaat dañuy am ay gis-gis dañuy am lu ñuy gis ak loolu dañuy réfléchir moo tax boo jàppee ni mën nga dëbb nit ñi liñ daan problème day am looloo tax li sëriñ Mbay Si Mansour wax wax leen nit ñi dëgg coow li yëpp dëgg rek mooy li nga xam ne moo ko kii mais kan moo ñu war a wax dëgg léegi ndax ki ñu doon wax démb li nga xam ne bi dañ naan ñu guy gee ndekete Dakar la kooku ndax moom moo ñu mën a wax tey ne guy gii guy la ñu gëm ko wala keneen lañ war a jël koo xam dañ naan ah léegi nag si réew mi toll na foo xam ni kat ñun ñii wax dëgg fa yàlla dañoo yàgg wax naka su dul noonu nañ wuti ji nag ñeneen ñoo xam ne mën nañoo wax nit ñi nit ñi dégg dëgg gi foofu la problème bi ne c'est que suñu problème yëpp fi mu toll ni fi ñu ne foofu la parce que avant ñuy wax màggal ba ñu tabaski jee la nit ñi prévoir ni situation bi dina ñëw pour ñu fanqal leen màggal nit ñi préparé woon loolu tamit boo leen ñëwaatee ne leen màggal gi est dina mën a am ak du ma léegi nga ne màggal gi ñeme woo tëj Touba moom nga ne léegi naa tëj Dakar te ku ne xam na ni ñu bari da ñu ëpp ñuy màggal Dakar la ñu jóge dem Touba mhm. léegi nga ne léegi ñemewumaa tëj Touba waaye naa tëj dakaar gi rab mooy kon damaa bëgg màggal gi nañ dem nañ màggal waaye nañ wéet ah. wala déedéet donc loolu mooy li nga xamante ni moo ci ne léegi ñoom nañ xalaat bu baax te moytu nag te xam nit murid yi dañ am benn langage Mm-hmm. dee dem du dee mm-hmm. <laughs> instant bi mooy solo gaaw <laughs> mag mi ngi noonu tey loolu lañ leen indiloon ci seen rubrique sujet du jour waaye ñun tamit hmm? dafa am lu mu doon bëgg dool am loo ci yokk dundu ah. dem dee dem rek ah dundu <laughs> dem dee béti nag mi ngi noonu instant bi moom euh, ay waxu màggal sax comme ñoo waxaguñ ci ñun tamit duñ ci mën a wax instant bi dañoo ni euh, tëj ràpp ndakaaru loolu la bëgg foofu la ñuy yem waaye tamit ñu xam ne rek bu ñu tëjee ndakaaru lu bari mën na naxas na sax ndaxte instant bi euh, lu ci mel ni secteur informel bi fii la nekk njàng meek yeneen ak yeneen yu nu mel nañu ci bàyyi xel bu baax a baax conséquences yi dafay wane ni waruloo jël lépp loo xamante ni moom nga am ci sa réew indi ko ci capital bi ndax su capital bi feebaree dëkk ba ci boppam xaar ma daane waxal nguur gi il faut que ñu gi mhm. dañuy xam luñ ci jublu mais des fois dañuy wax loo xam ne day mel na du xaw di fragiliser nguur gi te gënul nguur waru fragile mhm. war a dëgër te loolu li koy may mooy kàddu gu mooy kàddu dëgg kàddu gu jub ah, c'est important c'est important merci beaucoup mi ngi noonu Omar am na lum ci sàndiwaat ajaratu mi ngi noonu liñ ci doon sàndiwaat du bari sujet du jour day ñëwaat suba incha allah mais ñu remercier aussi Abdoulaye Diallo ajaratu kàddu gaa ngi noonu merci beaucoup euh, Diabo Diop euh, ci sujet du jour yi ngeen jox ñu tampon victime du ayca ay mi ngoog euh, sooy bu Diop la ñuy jox kàddu gi sooy bu tey loo indi. waaw ginnaaw bi ma la. balaa balaa may ma rek euh, comme rejoindre nañ ci plateau bi. Mhm. ñu jox ko mu nuyoo moom madame Samba Souka ñu ngi lay nuyu. Euh, nuyu mhm. mbokk téléspectateurs yi nga xam ne rek ñu ngi saxoo di stan seen télévision mag bi lee mu di Walfadjri leeru jamono la voix des sans voix deuxième numéro de la semaine ci seen émission mag bi lee mu di napal musical ci biir takku show nuyu ñu ma fekk ku ci mel ne Omar Bun Xataab Gueye Sane Ndiogou ak son yi bu borom euh, pied di poule nuyu naa lu bare bare ma jëlaat lépp rek joxaam la ko d'accord dinañ ci dellu si si kanam tuuti son yi bu ay deru leel loo indi tey ay ca jaajëf ajaratu bét nañ la bu baax a baax tey dañu indi ñaari ñaari mbir ñaari mbir yoo xam ne benn bi daanaka ay leeral lay doon rek mhm. bét yi boo xoolee Serigne euh, euh, Serigne Serigne Abdou Al Amin Al Ibn yàlla na ko yàlla yërëm xare Euh, bi mu fi nekkee boo seetlu am na kàddu gum jotoon a wax taalibe tijaan yi hmm. ci wax bu leen wax leen roy baax baax ci lim leen royloo woon ci murid yi ci yenn di ñuy def ak ci ay defaraat ak defi yëf xëy na jombul waa jii